أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين laqin lisaani waxlulan minhu luqad wajcalhu shaakiran wa zaakiran abad saddid lisaani nawwir janaani safi amaani wa zid baraa'i wajcal kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi ñoo ngi leen di ziyaare bu baax di ñëwaat ak yéen ci bind yi nu baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu ne di ko jàngatandoo ak yéen ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde nahju qadaa'il haaj muy yoonu pajub aajo ñu tàmbali woon ko ba jotoon cee jàngat ay bind bind yooyu nag moom lañuy wéyal ak yéen rek incha allahu di ko continuer fi nga xam ne foofu lañ taxawoon ci bind bi weesu muy fi nga xam ne comme ni ñu ko waxe téere bi dafa doon téere boo xam ne dañuy wax ay bayit di ko sara waaye ci bind bi weesu ñu ngi taxawoon ci biirub sara ba yemoon fi nga xam ne foofu la ñuy wax ne wa an tajala ak nga def mislaka sam kem ka nafsika niki sa bopp sawaan ci ak yemoo li wajhillaahi ngir jëmi yàlla alkarim ma di aju tedd foofu la ñu taxawoon muy wax ne na nga def képp koo gis na nga ko def ni sa bopp nga yemale ko ak sa bopp lépp looy dañ ku la ko def nga bañ ko koo def waaye lépp loo xam ne ku la ko def mu neex la nga fexey di ko jëflante ak nit ñi mu ne waalam na nga xam wala xamal bi annal adaba naka ay teggiin zinatul aalimi mooy taarub boroom xam-xam wal mutaallimi ak aji xam mu ne na nga xam ne ay teggiin de mooy taarub aji xam maanaam xam-xam lu ko nit ki bari bari xam-xam lu ko nit ki am am te amut ay teggiin na xam ne xam-xamam boobee taar ba des na maanaam xam-xam ba du amut taar kon xam-xam li koy taaral mooy nit ki amee ay teggiin waaye nit ki amee worma ju mat sëkk ci na nga xam ne noonu lay jëfandikoo li nga xam ne mooy xam-xam waaye wal mutaallimi itam ki nga xam ne mooy aji xamlu di ab ndonga la nga xam ne mooy tax la muy xam lu mën koo jariñ la nga xam ne mooy tax la muy xam lu am ab taar man koo andil jariñ loole mooy la muy xam lu ànd mu ànd ci ak ay teggiin yu mat sëkk sëriñ ba nga xam ne moo koy xamal mu fexey won ko ay teggiin yu mat sëkk oustaz bi nga xam ne moo koy jàngal mu fexey won ko ay teggiin yu mat sëkk waaye di jëflanteeg moom ci warma bu baax a baax di soofeel boppam ci kanamam yooyu yëpp ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax kon ki nga xam ne mooy aji jàng wala ki nga xam ne mooy boroom xam-xam li nga xam ne mooy taaral ab xam-xamam wala ki jàng lay tax mu mën a jariñu ca xam-xamam mooy mu ànd ak ay teggiin yu mat sëkk mu ne waxiliyatul aqili ay teggiin mooy takkaayul aji xellu maanaam ki nga ku am am xel rek dina fexey jël ay teggiin def ko muy sa takkaay waaye jël ay teggiin jikkowoo ko ba lépp loo xam ne moom ngay jëf rek nga jiital ko wal mutaxallimi ak aji lewet ki nga xam ne moo lewet tamit la koy mën a jariñ dëgg-dëgg mooy mu ànd ca ak ay teggiin kon foofu dañuy jàpp ne ay teggiin moom mbir la moo xam ne mënuta ñàkk ci dara képp koo xam ne yaa ngi jëf mbir wala ngay duggulante ak nit ñi di génnlante ak ñooñ bu bu ci ay teggiin seetee rek daanaka dara nekkatu fa mu ne wa huwa te moom ay teggiin rasul axlaaqi mooy boppu jikko yëpp maanaam jikko yëpp jikko yëpp moo leen féete kaw mooy jikko ji nga xam ne moo féete kaw jikko yëpp bu doon garab man nañ ne ay teggiin moom mooy njom mbaxtalul garab ga waman xalaa képp koo xam ne wéet na maanaam képp koo xam ne ñàkk na minhu ci ay teggin fa xatta xattala yokku na dëgg dëgg yokku na maanaam dëgg dëgg am na ñàkk na loo xam ne ku ko ñàkk ñàkk nga lu rëy rëy rëy wata battala te it neenu na maanaam li nga xam ne moom la ñàkk mën nañoo wax ne ak neen la ci moom maanaam lépp loo xam ne moom la amaat loolee mën na koo bañ a jariñ ngir la nga xam ne moom la ñàkk dara dafa mënta dem bàyyi ko wasaara te mu mujj moom moom yi nga xam ne moo ñàkk teggin baxidan di ku ñu bañ ilal xalqi jëm te mbindeefi wal xaaliqi ak suñu boroom mi nga xam ne moom moo sàkk mbindeefi kon nee na ki nga xam ne moom dafa ñàkk ay teggin da ngay gis ni nga xam ne noonu la ko nit ñi di bañi da ngay gis ni kon ni nga xam ne noonu la ko nit ñi di ñaane yàlla ni nga xam ne noonu la ko nit ñi di dëddoo nga xam ne daanaka du am kuy wax ak moom wala dara ndax koo waxal mu ne kii kat dafa ñàkk ay teggiin wala waxiinam jubut wala ni nga xam ne noonu lay waxee amut worma loolu lépp nit ku nu ko xasa bàkkee mbokk yi da ngay am jafe-jafe ngir ne nit ñi dañ lay dëddu ngir nit ñi dañ lay dummóoyu waaye suñu boroom bi nga xam ne moom moo sàkk mbindee fii tamit daf lay daf lay daf lay du mooy bu baax a baax waaye daf lay mere ngir lan ngir ñàkk teggin yi nga xam ne moom ngay jëflante ak li nga ñi nga xam ne ñooy doomu aadama yi kon koo fi gis mu yaru koo fi gis nit ñi teg ko fenn ab yar moo tax ndax sëriñ bay jaxate doon na wax ne amub yaray tax ñu jël nit ne tegg ca kaw waaye ñàkkub yaray tax ñu teggee nit ca kaw di ko caw kon loolu day firndeel ne nit ki su amee ay teggiin lépp loo xam ne moom lay yóotu ci mbindee fi mën na koo jot waaye lépp loo xam ne moom lay yóotu ci suñu borom bi subhaanahu wa taala mën na koo jot ngir ne teggiin mooy li nga xam ne mooy jikko ji nga xam ne moo kawe jikko yëpp mooy jikko ji nga xam ne moo féete kaw jikko yëpp bokk na ci jikko yi gën a tedd ndax yonente bi dane day ma yónni ngir ma mottali jikko yi rafet te ay teggiin moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam kenn ëpp ko ko woon ne na kon ki nga xam ne daf koo ñàkk moom suñu boroom daf koy mere mbindee fi dañ koy mere ngir lan ngir ñàkk googu nga xam ne moom moom moom moom la ñàkk ay teggin ne na kullama raahu saa bu ko gisee ahadun kenn maqatahu sàññi na ko sàññi mooy meram mer mu tara tara tar nit ki nga xam ne dafa ñàkk ay teggin saa bu ko nit ñi gisee saa bu rombee nit daf koy day mel ni ku ko mere te defu ko dara ngir lan ngir ñàkki teggin gi nga xam ne moom la xam ci moom waaye ngir ñàkk worma gi nga xam ne moom la xam ci moom wa abghadahu te mu mere ko lool kon ki ñàkki teggin su rombee nit ñi foofa lañ koy classé nit ñi dañ koy mere nit ñi dañ koy duñ ko jublu nit ñi duñ ko ñaanal suñu boroom lenn loo xam ne moo ko mën a jariñ waaye mën naa dem sax ba nit ñi di ko ñaanal loo xam ne moo koy lor te loolu lépp ak ñàkki teggin moo ko mën a jural nit ki mu ne wa kullama jaalasa fu mu fi toogee ahadum kenn mallahu yokku na ko wasa imahu te mu yokku ko yokku mooy mu tayyeel ci moom tayyeel ci ab jotaayam bu baax a baax a baax ki nga xam ne dafa ñàkk ay teggin saa bu toogee nit nit kookee day gis ne jotaay bu mu toog ak moom de jataay bu ñàkk pexe moo moo tax mu toog ak moom waaye toogaay bi mu toog ak moom dara gënalu ko ci ngir lan ngir ñàkki teggin goo xam ne amee na ko te it ñàkki teggin nag mbokk yi mën naa feeñ ci côté bu ne ngir ne nit ki su toogee ak mag sax di jëf jëfin woo xam ne wëree su koo jëf ci kanam mag loole ak ñàkki teggin la waaye nit ki su toogee ak mag di wax wax joo xam ne waree su ko dégtal mag loolee wax ju ñàkki teggin na te yooyu yëpp nit ki daf ko war a moytu kon waroo toog ak mag di saaga waroo toog ak mag di wax loo xam ne lislaam gërëmu ko waaye war ngaa fexey ba kàddu yi nga xam ne moom ngay génne wala jëf yi nga xam ne moom ngay jëf yépp ànd ak worma waaye ànd ak ay teggiin waaye saa boo xamee ne nit ki moom li muy def ànd ak ay teggiin képp koo xam ne moom la toogaaleel doonte ne mënut a jug bàyyi ko fa sax waaye na xam ne toogaay ba dara neexu ko ca waaye dara yitteelu ko ca mu ne wa minal adabi bokk na ci ay teggiin an nasihatu mooy laa biire li kulli ahadin ñeel képp kenn koo xam ne mimma ca la nga xam ne taraa gis nga fii ca moom rusdahu ak njubam nee na bokk na ci ay teggin ba tey saa boo gisee ne maanaam kii de lii nii su ma ko laabiree mën na koo jubal lii de su ma ko laabiree mën na koo amal njariñ nga laabire ko loolee bokk na ci ay teggin yoo xam ne nit ki war na koo sàmmoonte ak doomu aadama yi bu baax a baax a baax a baax kon laabire dañuy jàpp ne ci ay teggin la bokk nit ki soo ko gisee muy def lu mu wërta def wala muy wax lu mu wërta wax lay ay teggiin sa diggante ak moom mooy nga laabiire ko ba loolee mu bàyyi ko bu fekkee ne day def ak mooy nga laabiire ko ngir mu bàyyi ko loolee ay mooy teggiin sa diggante ak moom waaye bu fekkee day wax loo xam ne lu juunu la nga laabiire ko waxtaan ak moom ngir loolee mu bàyyi ko wa an laa dara bokk na ci ay teggiin ba tey tamit nga bañ a gis wa an laa tara nga bañ a gis li nafsika ñeel sa bopp xaqan jenn ak ala ahadin ci kenn maanaam nit ki war naa fexe ba moom ci wàllu boppam du wuta du wut jenn kilifteef ci boppam maanaam koo gis rek jàpp ne kii de daf maa war a jox ab cër kii de bu ma rombee ci barab dafa war a dagg ay yitteem ñëw ba ca man nuyu ma loolu ku gis ne dafa am àq ci nit ñi rek moom moo koy def loolu ku gis ne dafa am àq ci nit ñi rek moo koy def te bokk na ci ay teggin nit ki dafa war a suufeel boppam gis ne kenn koo xam ne daf koo yoreel àq amul wa annaka naka yow tamit yow cem si yow doomu aadama ji lasta li shay'in lasta mustaxiqan déet nga yeyoo yeyoo li say in dara min a taasiri ci ak màggal nit ki dafa war a jàpp ne moom yeyowu dara ci ak màggal kenn waru ko màggal amut kenn koo xam ne war na koo màggal amut kenn koo xam ne am na àq joo xam ne tax na fu mu ko romb di ko sukkara karaamal wala dara waaye nit ki dafa war a woyaf waaye nit ki lii di ay teggiin ci digganteem ak mbindeef yi mu jàpp ne moom moo amee àq mbindeefi waaye mbindeefi kenn ameelu ko kenn ameelu ko àq nit ki saa boo xamee ne noonu lay dunde ak doomu aadama yi bu boobaa ak dundam dana yomb waaye saa boo gisee ne képp koo gis rek am nga àq ci moom daf laa war a jox wala dafa daf laa war a jox ab cër boo xam ne fu mu la romb dala fay fekk di la nuyu wala bu la nuyu sax nga merca wala yi demee noonu te loolu lépp njuumte mën naa tax mu am yooyu ku koy def na xam ne dafa jàpp ne nit dafa am àq ci nit ñi waaye nit ki war naa am woyof am li nga xam ne mooy ak xeebu ci digganteem ak mbindeef yi ngir jàpp ne moom mbindeef yi ameeluñ ko benn àq yeyowut benn àq boo xam ne moo tax nit ki war ko nit ñi war ko màggal wala ñu war koo jox yitte joo xam ne fuñ ko romb dañ koy dañ koy màggal kama ashaara ni ki mu junje ilayhi jëm ci loolee nga xam ne moom la doon wax bi xaw li yi ci waxam ja ne na farxam na nga yërëm saxiiran ndaw laa takun bul nekk mu dax xiran di aji nëbb an bu walif ko layaadan dara min nasixatin ci laa biire goo xam ne taraa gis nga ko ne na na nga yërëm ndaw sëriñ bi ne na na nga yërëm ndaw bul nekk di ko nëbbal dara ci loo xam ne gis nga ne soo ko laabireen mu man ko koo mu man koo jariñ ndaw soo nekkee ak moom lépp loo xam ne gis nga ne soo ko laabiree ci lu baax dana ko jëmloo kanam waaye lépp loo xam ne soo ko laabiree mu bàyyi ko dana tax mu gën a avancé jëm ca kanam loolee na ngay fexal di ko di ko digal ndaw di ko dénk ngir lan ngir mu mën a am li nga xam ne mooy avancement waaye bañ a am li nga xam ne mooy ak deltu ginnaaw kon ndaw bul gis lenn lu baax loo xam ne mën nga koo digal nga koy dencal wala nga gis lenn lu bon loo xam ne mën nga koo tere te mënan koo lor nga koy dencal loolu mooy kon na nga yërëm ndaw te bul ko nëbbal dara ndax ndaw soo ko yërëmee doo ko nëbbal dara ndax lépp loo xam ne moom nga gis mu koy gaañ di nga fexey dox digganteem ak moom waaye lépp loo xam ne moom nga gis mu koy jariñ di nga fexey mu jot ca nena kon fiiha loo xam ne nekk na ca rusdahu ak njubam lahoo di ko ñeel rusdan ak njub lahoo di ko ñeel wa waqiri te na nga wekk alkabira mag walaw raaytuhu doonte gis nga ko daifan mu di ku lompañ ko niiw doole wa xaqiir te muy aji xeebu ne na kon lépp loo xam ne gis nga mu di ak njub ñeel ndaw rek na nga fexey nga laabi rek ku ko waaye na nga fexey nga wekk ci nga xam ne moo moo la féete ak mag mag na nga ko wekk def ko fa nga xam ne foofa nga bu dee ñu la mat ay wayjur nga teg fa nga teg leen fa nga xam ne fa nga teg say wayjur bu fekkee ñu la mag ay mag lan nga teg leen fa nga xam ne fa nga teg say mag bu fekkee ña ñoo ñoo xam ne mat nan la ay nijaay nga teg leen fa nga xam ne fa nga teg say nijaay comme noonu soo ko jëflanteeg ñi nga xam ne ñoo la féeteeg mag ñëpp yaakaar naa jàmm rek ngeen di seq waaye ay teggin rek ngeen di jëflante waaye ci warma rek ngeen di jëflante nee na mag moomee doonte da nga koo gis mu nekk koo xam ne mënalul boppam dara loxoom jotul ginnaawam amul dara tamit bu mu tee nga wekk ko bu mu tee nga jox ko dayo bi nga xam ne moom la ko suñu borom jox waaye bu mu tee nga warmaal ko bu mu tee teggiin yi ngay jëflante ak képp koo xam ne moom moo la mag nga jëflante ko ak moom doonte ne it dafa xeebu wala donte ne yére col ga mi sol xeebu na ak lum ci man di doon worma ji ngay jox ñëpp ak teggi yi ngay jëflante ak ñëpp mag moo xam ne dafa lompoñ wala mu xeebu wala loxom bi ginnaawam itam noonu nga war a jëflante ak moom kon loolu amuñu ci xajj ak seen amu ci waruñoo wax ne kii de suñ borom sédde na ko alal ni ma ko wegee bokkut ak ni may wegee ki nga xam ne suñu borom sédd séddewu ko alal ñoom ñëpp ku ci ne daf laa mag mag gamu la mag loolu moo tax nga war koo sédd ab cër mag gamu la waa mag loolu moo tax nga war koo wormaal waaye mag gamu la waa mag moo tax nga war a jëflante ci ak moom ci ay teggin mu ne wamin ta addu bi ka bokk na ci say teggin an laa tam duraa nga bañ a xool xaqan jenn ak li nafsika ñeel sa bopp ala sax sin ci benn waay taraa jóg def nga ko gis wa an tara ak ngay gis an naka naka yow lasta mustahiq déet ngay aji yeyoo say an dara mina ta'zimi ci ak màggal mim man xadd yame tukkee ca ka nga xam ne dana sopp dana bokk na ci ay teggin ba tey nga bañ a gis ne man mii kat jenn nit ameel na ma àq bul gis ne jenn jëmm ameel na ma àq joo xam ne war na ma koy jox fu mu fu mu toll nga xam ne nit ki saa bu la rombee nga jàpp ne kii daf maa war a ñëw màggal daf maa war a ñëw nuyu jox ma ñaari loxo sujjóot wala yu demee noonu yooyu yëpp nga gis ne nit ki daf koo dama dama ko àq la joo xam ne nit ñi dañ ma ko war di jox yooyu bokkut ci ay teggiin nit ki war na koo bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax waaye it nit ki wërta gis ne dafa am ci ñun jenn àq joo xam ne daa tax ñu war koo màggal fuñ ko romb wala ñu war koo jox cër boo xam ne waruñu koo jox ñeneen ñi nit ki wërta jikkowoo jikko yu mel noonu ne na bal li fi ne i'tabir na nga xalam al aadaaba ay teggin min nafsika ci sa bopp ne na li fi ne daal mooy na nga xalam ci sa bopp ay teggin maanaam na nga fexey def ci sa bopp ay teggin ba koo gis mën a jëflante ak moom koo gis mën a duggulante ak moom koo gis mën a jëflante ak moom waaye teg ko ci ay teggiin waaye teg ko ci ay worma waaye nag nee na walaatu taaliban bul sàkku mukk bihi ci ay teggiin alasxaaba ay àndaale maanaam bul ne man kat yàlla dogal na am naa ay teggiin nii laa bindoo nii laa jikkoo rek fawuma xëcc nit ñëpp ñu jëm ca déedéet ndax mën naa am la suñ borom dogal nga jikkoo ko nit ñëpp mënuñu koo jikkoo kon su la suñ borom joxee ay teggin fexeyal teggin yooyu koo gis nga jëfandikoo ko ngir mën a jëflante ak moom waaye bul ko sàkku xëcc ne kon ni ma mel faaw noonu ngay mel loolu it bokkul ci ay teggin kon nit ki na fexey am ay teggin ba ku mu gis mën a jëflante ak yow waaye it waaye it na fexey bu mu jiima xëcc kenn ne ko force nii ma mel noonu ngay mel loolu it bokkul ci ay teggin dina wakun na nga nekk maanaasi ànd ak nit ñi jamian boole seen daxraka ci sa jamono kama tuhibbu nekk nga bëgg an yakunu ñu nekk maaka ànd ak yow ña ne na nga nekk ak nit ñi maanaam sa giirub dund na nga nekk ak nit ñi ni nga xam ne noonu nga bëgg ñu nekkee ak yow maanaam lépp loo xam ne moom nga bëgg ku la ko def dee leen ko def lépp loo xam ne moom nga bëgg ñu koy jëflante ak yow dee ko jëflante ak yow ak ñoom lépp loo xam ne bañ nga ñu def la ko bu leen ko def lépp loo xam ne bëgg nga ku la ci jàppale boo gisee ku ko soxlawoo jàppale ko ca waaye lépp loo xam ne bañ nga ku la ca fekk fexeyal ba bu leen ca bu leen ca dugal mukk kon ni nga xam ne noonu nga bëgg nit ñi di ko jëflante ak yow fexeyal di jëflante ak ñoom noonu soo defee lool rek yaakaar naa ku ci nekk ci yéen dina jox ak cër am kemam waaye dina ko jox warma ju ma sëkk joo xam ne dina doon baaraas boo xam ne mooy dox seen diggante ba ñàkkente worma du ca am waaye ñàkkente teggin du ca du ca am kon nit ki su defee ni mu def boppam su ko defee ñëpp rek di jëflante ak nit ñi comme ni mu bëggee ñu jëflante ak moom yaakaar naa jafe-jafe du am mu ne yaani li mu jublu anna min xusnil adabi naka bokk na ci rafetu teggin an taatabira ngay xalam maa la nga maa huwa la nga xam ne al adabu mooy ay teggin min nafsika sa bopp wala tu taalib te bul sàkku bihi ci moom xayraka keneen wa an takuna ak nga nekk maa jamia naas ànd ak mboolem nit ñi kama tuhibbu comme na nga soppe wala na nga bëgge an yakunu ñu nekk maaka ànd ak yow kon loolu daf koy firi rek nee na kon bokk na ci rafetu teggin mooy ngay xalam ay teggin ci sa bopp waaye nag bul sàkku kenn ne ko force nii ma mel nii ma amee ay teggin wala nii nga xam ne noonu laa jikkowoo faaw di nga jikkowoo noonu yow fexe yal defar sa bopp ba koo gis mën a jëflante ak moom waaye bul bul di xëcc nit ñi wala nga leen di force ci nii ma mel noonu ngay mel te ngay jëflante ak nit ñi ni nga xam ne noonu nga bëgg ñu jëflante ak yow su soo jëflante ak nit ñi ci anam googu rek yaakaar naa jëflante gi jëflante gi dox seen diggante yépp ay teggin lay doon waaye jëflante gi dox seen diggante yépp ci worma ngeen koy ngeen koy teg kon ñi ngi tuub bu baax tey jéggulu di wax ne in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh